combat bi nga xamante ne nii xeex nañ ko ay at a ngi nii ci ginnaaw seen bëgg-bëgg yàgg nekk ñu publier liste bateau yi nga xamante ne nii ñooy napp ci géeju Sénégal bi loolee nag jafe woon leen ci ay jamono tey nguuru Sénégal daal di jël ndogal publier boobu liste ñoom ñi leen nag di ko rafetlu bu baax a baax. bu fekkee état bi jóg na tey génn list boo xam ne bii kuy ba bateau bépp pêche pêche bi nekk ci géej gi muy bateau sénégalais yi ak bateau européen yi. yëpp mu génne leen teg leen sur la table donc day nekk loo xam ne lii bëgg na ñu àndandoo liggéey lu ñu yàgg jooytu la. jën naqare gis jamono ji fii ci Sénégal loole nag jur njàkkare bu mag a mag suñ sukkandikoo ci ñoom ñi li Sénégal am lu tolloog 718 kilomètres de côte bokk ci gën a yaatu ci àdduna bi. loole nag tax na ba ñoom ñi la jàpp nii mënuñoo comprendre benn yoon li tax. Sénégal di jànkonteel jafe-jafe ci wàllum jën. am na ñoo xam ne amuñu kayit ñu ngi ci géej gi ñooñu tamit dafa laaj càmbar bi da siy baax parce que boo fësalee ne ñii ñoo war a napp géej Sénégal bu boobaa comme li may faral di wax mupp mool boo xam ne bi yaa ngi dem géej gis nga liste bi ñàkkul mën nga jàng tuuti am na tur yoo xam ne boo leen gisee appareil photo yaa ngi fi di nga nekk koo xam ne kii surveillance participative bi ñuy wax mool bi da siy parti da siy da siy bokk. naam sax. nguur gi def na jéego yu mag a mag ngir rek daal di xeex li ni mel wante rek ñoom ñuy xamle ni duñu bàyyi benn yoon mu sedd dinañu wéyal lii di xeex bi ndaw yi par exemple yaakaar bi ñu amoon si géej defoon na ne mool yi ñëpp ñoom ñëpp ay milliardaires lañ pourquoi parce que dañuy ñëw léegi tëmb frais peut-être benn benn benn benn trente mille wala benn cent mille francs dem am quatre cent mille trois cent mille xam nga loolu nekk na loo xam ne lii képp ku gis nit ñuy fonctionner noonu danga nga foofu am na njariñ fàttali rek nii bëri na ay ndaw yi daal di génn Sénégal daal di dem bitim réew ñu ëpp ci ñoom doonoon ay nappkat li ko waral di jafe yi nga xamante ne nii moom lañ daan jànkoonteel